salaamaaleykum mbokki internet yu suivre sans limite ñi nga amati mbégte ak contentement bu baax a baax tey di teew fi li nga xamante ni mooy euh, kër imam imaam nag boo ko waxee ñu gën ko xam ci imaam Makhtar Gueye Jamra imaam nag doon na koo xamante ni kàddoom bu réew mi tollee fenn fi ñu bëri dañ koy xaar parce que moo jiite kuréel gu mag gi nga xamante ni mooy Jamra ku ne xam na seen taxawaay ci li nga xamante ni mooy réew mi ci lépp loo xamante ni bokk na ci luy defar li nga xamante ni mooy askanu Sénégal ci diine ci li nga xamante ni mooy bépp anam muy politique ci bépp pàcc boo xamante ni mu am ci taxawaay bu am solo tey moom lañ seet si ku ne gis na situation dëkk bi actuellement euh, actualité bëri na polémique bi bëri na wax ji bëri na moo tax tey ñu fas yéene ko taataan mu joxe ay xalaatam ci li nga xamante ni mu ngi am ci réew mi actuellement papa ñu ngi lay siyaar. waa kay jërëjëf Boubacar xanaa di amati mbégte rek ci dalal bi ma leen dalal euh, yéen ngeen dalal ma ci seen euh, plateforme bu tedd bi di sans limite te tur bi rek àtte na boppam parce que boo nee sans limite yéen amu leen sens interdit fenn. Euh, lépp loo xam ne rek euh, askan wi woon nañ ko ci ku leen di jottali ay xibaar information ci wàllu social wàllu économie wàllu politique wax dëgg yàlla sans limite euh, kenn du dem mu des kon nag ñu ngi am yaakaar ne simili yi ñu fas yéene seq ci laaj ak tontu dinañ ci jële njariñ ñun ñi ci plateau bi kazalika mboolem followers ak téléspectateurs u sans limite incha allah. papa dañu ñëw tuuti ci li nga xamante ni mooy taxawaayu Jamra ku ne xam na ni diine da ngeen ci bàyyi seen waar. ñu gis ñu jóge ci euh, weeru tedd muy weeru gàmm ñu gis am am polémique boo xamante ni am na fële nga xamante ni mooy Tiwaawan kër euh, Aziz Ala Ndiaye mu doon gàmm joo xamante ni amaana pare na polémique bu bëri ci réew mi ba mu am ay weccante kàddu naka nga gisee li nga xamante ni moom la Aziz Ndiaye gàmmoo fële ci Tiwaawan. waaw man defe naa communiqué bi génn ci réseaux sociaux yi te ñun ñu liir ko en même temps que tout le monde dama fàtte turu kuréel bi waaye ñoom nee nañu dañuy ittewoo aar. Euh, valeur u xadaratul malikia defe naa noonu la ñuy tudd voilà yëkkati nañ ay kàddu yoo xam ne man ànd naa ci euh, parce que nee nañu euh, kii sos yoon wi kenn xam ko xamee ko ci affaire caaxaan xaala laaw yàlla nee na xaala rasulullah yonent bi nee kon nag ñoom def nañu seen déclaration daal di démarqué wu ci loolu ñu tuddee màggalu sang bu tedd Seydina Muhammad te dara <laughs> niróolewu ko ak loolu ndax kuy ñëw ci jataay boo xam ne sang bu tedd bee ko tax a jóg defe naa première euh, euh, pré première précaution première euh, itte voilà mooy ci melokaanu ña koy tewee ci seen colin muy góor muy jigéen ñaareel ba tamit du ñuy faral di jaxase góor ak jigéen ci jataayu gàmm ak tamit kàddu yi waaw warul nekk ay kàddu grand place tubaab di ko wax kàddu yu vulgaire voilà liir naa seen communiqué bi wax dëgg yàlla ñoom bàyyiwuñu dara voilà am naa yaakaar ne nag ki tax communiqué bi jóg dana ci jéem a bàyyi xel parce que nit la rek euh, il est animé de bonne fois waaye tamit nit day juum alors bu ko defee war na cee mën a sukkandiku pour bu ëllëgee mu mën a joyanti ak jubbanti yi nga xam ne war na ko jubbanti parce que guddi gu day nii. Euh, rabiul awal ñu di ci màggal gane àdduna ki gën ci mbindeef yi ba suñu borom tabal ko grade yu rëy rëy saydil awalina wa saydil axirina xaatimu nabiyuna wa imaamul mursalin nee na ko xaatimu nabiyuna yow après yow keneen du ñëw ndax yaa mottali lépp wa imaamul mursalin te ñi jot a wàcc ba léegi ba si ba ci yow yaay seen patron yaay seen iliman kon kooku guddeem kenn du ko fooye voilà kon yàlla ni yàlla Euh, xiir euh, ci ci dégg ak topp incha allah. mais ci biir loolu boo xoolee ñi doon gàmm bés boobu ba tey ñoom delluwoo ñu ginnaaw benn yoon ci li nga xamante ni mooy fa am ku ne gis na li oustaz euh, Modou Fall wax ni daanaka foofu kii amu foon moo fa am ba mu jot indi polémique moom ak Aïssatou Diouf Fall ñu ci waxante ay kàddu yu ñaaw. taxawaay ban la ci. ah lu ko neex wax bu ko neexee ne Bercy la fa amoon Grand Théâtre fa amoon Sorano fa amoon lu ko neex wax waaye waatu waa Tivaouane ñoom wax nañu seen kàddu muy lu leer ne nag dootuñu nangu kuy wuyoo ne waatiwaawoon nga kuy wuyoo ne ci xaratul ahmadiya xaratul yaa nga bokk ba pare di am yenn comportement yi voilà kon mise en garde bu leer la euh, te tooñ baaxul voilà comme que pas-pas la mbiru pas-pas te ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk ñu nekk sa kaw ñun ñëpp am nañu devoir aar ko waaye ñi yàlla euh, nattoo ñu nekk ca kaw te war ko aar bu ñu yëkkatee kàddu wax dëgg yàlla dara walu ñu lu dul ñun euh, taalibe yu ñàkk solo yi ñu dul lu dul rek ñu jëfee dégg ak topp rek waaw boo xoolee ba tey kàddu yi parce que dañuy gis kàddu yi day gën a ampleur yi moom ak Aïssatou Diop Fall ñu waxante ay kàddu yu ñaaw ku ne gis na kàddu yoo xam ne tey yéen ban taxawaay ngeen ci war a am te amaana loolu bokk na ci loo xamante ni génération léegi ku mere nit jóg taalal ko live xas ko saaga ko ba ngay dégg ay ñuy waxante ay waxu gañoo ay wax yu ñaaw yoo xamante ni ban taxawaay la ci jëm. waaw xanaa taxawaay bi ñu mës a am rek depuis février 83 bi ñu sosee Jamra ça fait 41 ans moo di euh, di leen ñaan rek ñoom ñaari jëmm yooyu loolu tubaab di wax savoir raison garder waaw na ñu delloo si seen xel xam ne euh, du mën a ñàkk même ci biir famille sax diggante papa ak doom euh, boroom kër gi jabaram léeg-léeg ay friction di am ay fantasiro loolu du mën a ñàkk waaye lii bon mooy di ci insister parce que bu boobaa day ubbil buntu seytaane mu jur ay woo xam ne di nga xam fu muy tàmbali doo xam fu muy yem kon nag ma Jamra ngi ñaan Aïssatou Diop Fall ak euh, Modou Fall ndax eh, ay doom bàyyi lañu kii faal kii faal eh, ñu di leen ñaan daal ci barke paaleen gi ngeen bokk barke diiñe di ngeen bokk ngeen fopp lépp teg ko ci suuf. ndax diggante woon ak ñoom ba léegi leen. Eh, non non man bëggoon naa ci jóg waaye bi nga xam ne kilifa Tiwaawan yi yëkkati nañ kàddu rawatina def communiqué ci laa ne ah kàddu gu noonu bu jibee day kenn waratu cee teg dara. voilà kon di leen ñaan rek ne seytaane moo dikkoon rek ngelaw seytaane rek waaye buñ ko garaawal. Euh, bu ñu def tamit loolu mbëru làmb yi naan guddal jël la jaru ko waaw jeex na nañu tourner la page ñu gas lépp suul Sénégal continuer jëm kanam. jërëjëf papa mais ba tey tuuti ci li nga xamante ni mooy actualité am na loo xamante ni dafa jaxe sa xelu Sénégalais en tant que imam pour que nga leeral ñu bëri parce que réseaux sociaux yëpp actuellement moom la ñu waxtaanee muy mën nañ ni Doro Gueye tax li nga xamante ni mooy ki mu fase woon tax ko taxaat ko deuxième femme diine lan la wax ci loolu ba xam kooku mooy première wala mooy deuxième. waa kooku nag comme que ñun eh, ni eh, d'abord du ma imam mm. voilà pour euh, mauvaise langue yi nekk ci réseaux sociaux yi ma jiitu leen ci mm. du ma imam du ma naayib mooy adjoint imam yi mm. grade oustaz ba gën a tuuti sax aw ma ko leer na day wala kon man lan la ab ndongal daara bu tekkiwul dara tey góor góorlu di roy ci ñu baax ñi defe naa loolu am naa ci droit roy ci ñu baax ñi alors ci wàll yooyu nag ñun toujours on a des références yoo xam ne toujours ci wàllu diine ñun amuñu benn rëy di taataan seen xalaat ak seen kàddu euh, ku ci mel ni oustaz Aliou Sall si suñu oustaz la bokk si ku mel ni oustaz euh, Iran ci oustaz yu Jamra yi la bokk ku ci mel ni euh, sama turandoo oustaz Makhtar Sarr voilà kon laaj bii nga ma laaj delloo naa leen ko ñoom luñ ci wax rek ànd naa ci. jërëjëf papa euh, ba tey nga xamante ni mooy actualité politique bi boo xoolee réew mi parce que gis nañ euh, actuellement dossier yi jib na ba ñu jàpp ki nga xamante ni mooy euh, Lat Diop woogoon ko fee dëkk entendre woon ko ba tey delluwaatul fi li nga xamante ni mooy këram naka nga gisee taxawaay bi état bi am actuellement ci li nga xamante ni mooy rapport yi. waaw loolu day aada la dans une démocratie bu alternance amee maanaam changement de régime. Euh, jaanu na régime bu bees bi doog a egsi comme ñun bi ñu doogee egsi